Nous sommes là maintenant on souffle la fraîcheur de l'innovation nous sommes les enfants de la télé chers internautes yu télé à asalaamaaleykum dal leen ak jàmm si benn plateau spécial te ñu ànd see ki nga xam ne nii moom moo nekk Idali boo tuddee Idali te tudd kii di Wally Ballago Seck le chanteur du peuple waaye tamit ñëpp di ko dëkk dàkkante tamit encore une fois le choix du peuple. idaal di sama waay la woy bi woy bi woy bi nga xam ne nii kii di Wally Seck woy na ko mu daal di maanaam wër àddina ba looloo tax mu toll nii actualité saa yu xewee ñëpp seen xel yëpp dem si moom moo tax ñun tamit daal di ñëw si moom nar waxtaan ak moom mais Ida di. salaamaaleykum sër maa ngi lay ziar di ziar àdduna yëpp. di ziar Sénégal képp koo xam ne rek euh, nit bu ngi fa di sénégalais di euh, ci àdduna bi rek maa ngi lay ziar di la ziar seen. Mm-hmm. di ziar euh, Télé Sénégal di ziar àdduna yëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama waajur ñaari waajur nekk ci biir suuf yàlla yàlla xare leen àjjana ci barke Seydina Muhammad mm-hmm. ab képp ku leen fa fekk ab képp ku ko fa fekk mm-hmm. di ñaanal uh, Wally Ballago Seck ku nekk xam na ko ak sama digganteek moom yàlla ko yàlla defal jàmm ci barke Seydina Muhammad lu ñuy séntu ci moom ci safaan wa yàlla na ko yàlla tourné lépp lu ñuy bëgg ci moom yàlla ko yàlla defal jàmm ci barke alxuraan. amiin ana prési sa prési. sama prési waaw. sama président sama patron sama frère de champ sama lépp mhm. waaw ate yaa di xuus maanaam dugg maanaam si ni nga xam ne ni moo doon actualité fu mu toll nii euh, dañu si ni nga xam ne nii moom mooy affaire Thiat Seck balaa ñu ñëw si li nga xam ne nii mooy diggante euh, Mara Adamo Mbaye Zall ñoom ñëpp day si waxtaanee alors mhm. mais nañ ñëw si problème Thiat Seck bi mhm. après Thiat sorti Thiat Seck bi na nga gisee na nga maanaam première fois bu ko déggee mu wax ko si émission guddi gi sa première réaction lan la woon bon loolu ba ma ko déggee bett na ma maanaam ci Thiat Seck parce que séntu moon kàddu yooyu mu génnee ko di jëmee ko ci Wally Seck. Mhm. naam méttiwu ma xam nga su ma nee métti na rek. Euh, metti wu wax dëgg yàlla mais bett na ma lu la bett ak lu metti bokkul mhm. parce que wax loo xam ne euh, amul wax loo xam ne en fait man du ma metti parce que xam naa ki ma àndal xam naa ki ma doon muy Wally Ballago sekk li muy def ci réew mi kon bu nit ñëwee wax ko leen loo xam ne en daf ko jëf ba pare ñu jëm ko yàq du ma metti jëm ko yàq laa la wax nag caat loolu metti wu ci mu def mais daf maa bett parce que caat dama jàppoon ne en euh, loolu du ko génne ci gémmiñam di ko jëme ci Wally naam loolu mënul wàññi Wally dara daf koy yokk ñun ñii encore dañuy yokk mais tey moom lay wàññi moom caat parce que tey ku mel ni Wally am fu mu fonk fonk ñëpp àdduna yëpp mais am na fonkel boo xam ne moom la fonke caat artiste yëpp la fonk mais dangay gis cër bi mu jox caat ndax caat bëgg ko ba mu jeex tàkk di grand frère am mm-hmm. moo ne ko maay sarak yaa ma njëkk ci musique mais yàlla mooy dogal mm-hmm. mu nangu loolu caat ñëw nangu loolu féetewoo Wally teewul mu ngi liggéey liggéeyam mais lim seq ak Wally ci relation bu ñëwee da koy def après bu pare dem liggéeyam dafa nice mais kàddu yooyu mu génne daf ma métti yu ma de mais daf ma bett ci diggante caat ak Wally parce que dama xam caat mu nekk sama xarit xam diggante ma ak yi ñuy toog ma caat barki Seexul Xadim di wax cofeelam ci yi biir këram ñu déggante ma moom ba démb rek woon na ma barki Seexul Xadim dara laa nekk caat rek. na ngeen wax. jote kom. na ngeen jote wax yee ñaar démb. non non loolu du ko wax. loolu du waxu téléphone bu doon ko waxal téléphone nga ñëw wax ko loolu du ma ko def mais dama ne la maanaam na relation boo xam ne démb rek dégg nañ ma ak moom comprendre nga wax nañ ci affaire bi te avant lool tam aussi wax nañ ma ak moom loo xam ne ma ak moom ak yàlla la comprendre nga ci côté showbiz ci côté moog waali ni mu bëggee waali ni mu fonke waali ak ni ko waali def ak ni ko waali fonke comprendre nga ba am lu bari bëri bëri loo xam ne en wax nañ ko ma moom biir këram biir néegam toog teg café Touba di naan di lekk beñe di waxtaan caat ba def koog ñu bëri def na koog man mhm. ndax fonkal gum fonk waali ma bëgg ko man di bëgg waali parce que ku ma xam man xam ne ci kaw fii Sénégal bëgguma benn artiste ku mhm. maanaam bëgguma bu ko gaa yi jàpp ne en fait ñeen dama leen bañ maanaam ci côté showbiz mhm. gëwuma kenn ku dul waali ànduma kenn ku dul waali liggéeyuma kenn ku dul waali man Idali personnel maanaam fa may waxee mooy mais dama dem ci caat ne ko man sa carrière ci côté musique ci côté showbiz dinaa ci jàpp comme man showbiz laay def ci laay liggéey ci laay xëy ci laay gont kenn gënu ma xam showbiz nag fii Sénégal kenn gënu ma xam showbiz depuis ndongo loo nekkoon ci showbiz mm-hmm. gars yi bëri jàpp nañu Idali yi dafay dof dof lu dafay def nii mais kenn gënu ma xam showbiz même ma toog ca ma koy ànd ak waal mm-hmm. bëgg ko te yàlla tax manager artiste bu nekk woona pour ma manager ko dama tudd ay tur barki Seexul Xadim te mm-hmm. pourtant ak ma ko amoon barki Seexul ko mais caat daf maa bett ba ci kanam yàlla te bu ñëwee ci mayu oto beek ni mu demee yëpp naa la ci leeral yëpp parce que lépp fa la ma fekk. vas a ñu mën a kii rek. Mhm. maanaam continuer si oto bi après lan nga si yow parce que nga su bëri ba Wally Seck jour bu muy may maanaam bu muy may Thiat oto bi sax fa la fekk baatee mu ko baatee fa la fekk explique ñu affaire bi ni mu demee. waaw ni mu demee mooy li may njëkk wax mooy Wally suba ñu waxaat lu gën a pire lii ci kawam ci daram parce que moo fi jëfkat bi barki Seexul Xadim moo fi artiste boo xam ne moo fi jëf ba àdduna yëpp xam ne mu fi jëf di jëf lu baax di maye ay oto di maye ay million ba ñëpp xam ko ñeneen nag xaw ma yoruñu xaw ma yoruñu yor nañ mais bu même bu ñu yoree amuñu xol bi waali am di joxe te waali tey suba suba la gën a mën a maye oto suba suba la gën a a maye ay kër suba suba mu gën a mën a ay maye ay millions parce que lu ko yàlla jox te dina ko jaamu yàlla yi mm. xoolu idaal yi mu nekk moom xooluma ma sàmba waali xam lan la xam banni aadama na nga nekk doomu aadama rek waal loolu la xam parce que xam naa ko dama fréquenté ak moom mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. kenn ku ne si cër yi kenn ku ne si cër mooy xam oto la may moo xam kër la lay may moo xam day yëkkati seg jox la xaalis mais kenn ku nekk ci àdduna mu ngi lay defal lim la war a defal mm-hmm. rawat na staff bi nekk ak ñoom avant tout kon caatteg tey bu ñëwee am nu mel ci waal waali xam ne mën nitam ku ko bëgg ni mel caat sekk bi muy tudde waali soirée bi sama kanam la vogue la dimanche la woon Vogue mu ñëw Vogue yoo pare ne ko damay jour vendredi damay jouer vendredi kat sama première dugg Almadi ci five vendredi la. te damaa bëgg tuddi la soirée bi ci plein soirée maa ngi taxaw di filmer waal seeg na ko incha allah dinaa ñëw te faramaaren yëpp na ngeen pare benn tamit na ngeen pare Mbaye Ndiaye yéen ñëpp na ngeen pare faramaaren yi ñu dem caat jàppale sama sama sama grand frère. sama kanam la barki Seexul Xadim image yaa ngi fi xam kon kooku am na fu nit tudd na ko soirée ba taay demul. Mhm. mu yebal ay nit demul mais fonk caat moo tax mu déplacé wu faramaara ni kenn deful keroog ñëpp ñu dem soog ñoom ñaaxarañ loo njëkk fa def li ñu def lépp tra tra caat soirée bi fees del caat mosul am soirée feese noonu barki Seexul Xadim mhm. parce que waali bugg a sagal nitam bugg a siggil doomu aadama comprendre nga mhm. ñëw def surprise ñëpp di yuuxu waali yéeg ci kaw seen bi mën na ñëw toog fa mu toog jox kenn mbay si njaay wala keneen wala mm, tumaani ne ko demal baatre caat ba ñu yéeg ci mais respecté ko ak wan ne ko cat grand frère la mu wàcc ci kaw chaîne bi taxaw ak moom di génne di ko sokk di génne di ko jox plus de un million. un million mu may ko cat mu jeex ci kaw chaîne bi image nañ ko génne mu jeex ci kaw chaîne bi waaye ak xol ba ak ngor ba xam ne kii nitam la mu kii tafaa ne ko sànni ma caab bi bi oto bi. 4x4 mhm. Tafa mu sànni ko ko sama kanam 4x4 ñuul la. maa ko filmé man image yaa ngi mu sànni ko ko ci kaw ni mu këf ko mu jox ko caat nii bëtt wàcc dem gaa yi daw na oto bi ñu gaw def oto bi mu gaare ñu egg filmer ko zal du ma bàyyi ma fenn xaritu la comprendre nga zal ci oto bi contact taal ménagère am bi xool lépp kontaan maa jël vidéo ñëpp ñëpp kontaan ne waaye def nga loo xam ne kenn mësu ko def ci artiste kontaan ci oto bi def lépp mhm. ñu dawal dem seen oto juróom dañu caat juróom taxi la ñëw bi ñëw mais bi muy ñibbi oto bee ko yóbbu mu génnaat ci télé yi ni mu def nii ratatat waali nangam nangam tey bu génnaatee wax lii du ñu metti xam la du ñu metti waali maye na fu nekk oto waali li maye ci réew mi oto benn président maye ko fi benn amul benn autorité bu ko maye wala benn koo xam ne social ngay def bu ko maye oto nañ compté oto yi maye te am na yoo xam ne xamu gisuleen ko waali li muy def ci suuf moo ëpp li muy def ci kaw mais am na loo xam ne boo nekkee mission boo nekkee euh, koo xam ne da nga siiw loo def lu mu bon bon mu siiw man mii moo bu ku ma defal dama koy wax parce que loolu mooy àdduna mais boo xoolee dama naan toujours nit ki boo waxee xool la ca background ba xool background ba mm. man def ji caat wax nii non dama ne du caat cent pour cent am na leneen lu mu àndal. da nga jàpp ne peut-être dafa xam ne ñoo si dugal. déggoo li mu la wax wala affaire yooyu noonu. Euh, seen ñun showbiz lañuy ñuy def defuñu leneen man jaayuma keccax jaayuma gejj jaayuma ñebe. su <laughs> mu leer showbiz laay dund. <laughs> ba ma tollee nii ba léegi ci image laay dox photo laa njëkk def dox ci image dem ci vidéo dem ba ci télévision. kon xam naa lan mooy sow biis xam naa lan mooy wax boo waxee benn baat san naa xam bii fii la jóge fii fii la jóge boo taqalee sax naa xam ne fii da nga ko taqale man maa mel noonu man idéal dama xam mais lii du jëfu caat non nekkul bi mu koy wax maanaam bu ma nee nekkul du question dafa naan non du ma wax ni dafa naan man du ma naan fekk ma du ma wax dafa tux loolu yëpp sama yoon nekku ci waxuma yooyu yëpp mais maanaam xelam lii du xelu caat am na leen lu nekk ci background bi am na lu nekk ci ginnaaw mhm. barki Seexul Xadim du ko mën a wax nag parce que wax na ba pare bal bi tàkk na ba pare. mais rëcc dina ko rëcc nee na rëcc wu ko de barke Seexul Xadim mais dina ko rëcc xam nga dafa ko rëcc. ma ko dara parce que du ma ko ménager du ma ko def dara. caat sama frère dem dëggante rek kon xam nga ne kii ma ko. maanaam ci carrière am. Mm-hmm. bootoon laal waal yi maanaam bu waal nekkul ci nañ ko laal ah. Mm-hmm. waal bu nekkul ci dëgg nañ ko laal mais maanaam dafa nekk koo xam ne def toujours ci réew mi def lu baax ci réew mi Wally Seck mais toujours rek. duñ retour ba du baax duñ ko defal lu baax. Mhm. te day continuer waat encore du ko def te dina um. kooku mooy Wally. voilà kooku mooy Wally mais dañuy dañuy gis nga xam ne nii moom tamit euh, Sénégal yi bëri tamit temps yi moo ngi doon actualité ça veut dire que nee nañ nii waaye dafa changé complètement cercle d'am maanaam ñu doon ànd léegi àndul àndul ak ñoom beneen bi mooy dem na sax ba ne waaye fu mu toll nii lépp lu muy def tayatu ko maanaam dañ ko commencé liggéey ñu bëri ñoo xam ne nii ñu ngi si wetam dañ koy liggéey ana nan ana nan nga déggee maanaam kàddu yooyu la. Wally kan la doon àndal te àndul ak moom limal ma kenn rek s'il te plaît. non ça veut dire que mooy album Adamo dégg nga xam ne album yi si liggéey ñëpp kenn li après maanaam album def na 4 ans ñu si doon liggéey ak bokkul ak ñi nga xam ne ñoo si doon ñoo si liggéey nii jox na ay tur. xam nga. jox na Amady Badiane joxe na ñeneen ak ñeneen ça veut dire que su ma limee damay jum. Mm-hmm. xam nga loolu mooy wax ju wax ju wax ju daanu ci saret ak wax joo xam ne maîtriser woo ko. xam nga ku dem ba ne Amady Badiane da doon liggéey ci album Wally mais moment bii dañ ko écarté xamul ci album bi dara. Mhm. loolu mooy yow yaa ngi jaxase. yaa ngi nëxal xelu gaay yi ñun nag mënuñu nax suñu xel parce que xam nañ lan mooy Ramadane lan mooy kër Wally la fa nekk xam na lan mooy staff kenn ku nekk fi nga war a liggéey parce que Wally liggéeyam dafa professionnel la kenn ku nekk ak li nga war a liggéey. comprendre kon bu demee ba ne bu ba ne Amady Badiane dañ ko écarté ci album bi xam nga loolu mooy waxu kataw kataw Amady Badiane di Wally Wally di Amady Badiane lundi ak mardi bés doxu ca Wally du def lu Amadou Badiane yëgul Amadou Badiane def lu yëgul ñu ñëw ne Amadou Badiane dañ ko écarté mu ngi andi beneen porte boo xam ne mooy loolu gis nga ñoon di wax ñu génn di wax yëpp ay Wally dañ ko liggéey ak dafa écarté ñii kenn ku nekk ak li liggéey ci Wally kenn ku nekk ak ni nga ñëwee ci Wally man gëw ma benn yoon kenn wax jooju te dañu manipuler li nga xam ne moo di sénégalais yi nga xam ne ñoo bëgg Wally te comprendre ñu mhm. mais ñun ñi nga xam ne jege nañ Wally ñun ñi nga xam ne dañuy dégganteeg Wally ñi nga xam ne instant dañuy jege jege Wally toujours jege Ramadan xam nañ lan moo waral loolu tu comprends te loolu mu wax noonu amul te gëwuma ko may waxal sénégalais yi fant yi faramaara ni loolu musul am dañuy nëxal seen xel yi parce que waali kenn ku nekk ak ni ngay liggéey moom amul gan amul lii comprendre mu ngi naan ay mu ngi naan ay Baysal ay Omaro dañoo ñëw changé wu ñu len dañoo ñëw liggéey ci waali mën nga fa andi au moins 2 pour cent dañ lay jël jël sa 2 pour cent jël euh, Ibrahima mais 4 pour cent am ñu boole ko mhm. ñu liggéey pour waali jëm ca kanam mhm. mais amul kenn ku ñëw di yàqal waali wala leneen amu ci muy Baye dafa ñëw pour liggéey Baye Sall li ñu koy meree chaque jour lenn kese la manoo koy wax Baye Sall bañ géejee dégg ne mën na 3 mois maa moom dañuy xeex laaj ko dañuy xeex ba ne nga 31 décembre bi ñu jëm rek moo ci moo ci mujj bi bu daaw bi ñoo xeex maa moom ba talante bu jeexee jeex na vogue lañ juboo parce que dafa respecté liggéeyam norme yi ñu ko dex da koy respecté Baye Zale loolu mooy problème te gars yi dañ koy mere chaque jour ci loolu parce que dafa am fulla ci li muy def nit ki boo Dakar sax boo koy jaay boo ci am fulla ñam ma ñam ma ñam jeexal ko. Baye Baye nag loolu mooy problème bu ñu ko joxee benn mission da koy àggale ba mu sës du ji wala ñu virgule. tey bu ñu ko joxoon mission ci soirée waale wala leneen tey maman Diaga ñëwoon sax bëgg a dindi loolu danaan ko no Baye Zale noonu la mel te nit ki nit ki mel noonu toujours dañ la naan da nga réew da nga bon xol da ngay def lii te di melu noonu Baye pour def lenn lu liggéey. comprendre nga mm-hmm. président sax day na am ku jóge ci Macky saal dem ci Sonko wala feneen ak feneen mënul ñàkk jóge fee ñëw fee ci showbiz mënul ñàkk mm-hmm. comprendre nga loolu du dara Baye Zale dafa ñëw di liggéey waale am fu ko teg mu am lu mu waale xam na lépp doful. mais dafa dafa mel fu mu toll nii maanaam eh, seen biir da ngeen commencé def ay clan. clan amu fi de. dafa nànk rek Idaly dafa nànk. oui ma Idaly man man ma xam naa ko bu baax donc mooy ba fekkee yéen seen biir da ngeen def da ngeen commencé def ay clan. comme mun naa la wax clan yi. waaw ah, ça veut dire mu toll nii Adamo ak euh, ak Pawlish Mbaye dafa mel ni fu mu toll nii ñoo far ñoom ñooy sànni kii mooy sànni ay xeer Umaro kii di sànni ay xeer Baye Zall yow sa côté nga faral Omaro ak kii di Baye Sall di leen défendre ça veut dire yi ñoo ngi commencé ñëw tamit euh, uy ma man défendre ma mbindeef ci kaw suuf kurwaal muy leer défendre ba Baye Sall ji ma gis ci Baye Sall laa wax défendre Baye Sall de parce que Seexul Xadim Baye Sall lan moo ma koy défendre déggul déggul Baye Sall défendre ma ko li ma xam ci moom laa la wax laay wax lu ma xamul du ma ko wax défendre Baye Sall de Baye Sall lan la ma apporter ba ma koy ba ma koy défendre Baye Zale lan laa ko apporté moom koy défendre Amoro encore noonu du ma ñoom sax lu bari parce su ma déggante ñoom damay fen mm-hmm. damay déggante ñoom mais maanaam Baye Zale mm-hmm. ma leen juste rek li ñuy liggéey laay wax bu ñu defee faay ba dama koy wax damay toog ci télé wax ko mais gisaguma faay bu ñu def nit ki du la jiñ loo xam ne maanaam gisuma ko ci yow dafa ñëw yokk ci waal yi mais wàññiwul parce que waal yi am moo moo bëgg coow. Mhm. musique am moo ànd ak coow moo tax ñi koy laal ni caat sekk mi koy laal lan la waali mooy coow li te suba di ngeen gis leneen ci moom mhm. man défendre ma mbindeef ci kaw suuf kurul waali mhm. gëw ma mbindeef ci kaw suuf kurul waali ramdan su ma leen jàppee tey amoro su ma ko jàppee xam la moo tax ma jàpp waali Baye Sall su ma ko jàppee waali keneen su ma ko jàppee waali ah door na ñi nga wax na ñaar ñi nga wax daan dañoo def kalaan ak ñoom bokkuñ ci ramdan fant lañ rek fant fant waal lañ bokku ci Ramadan. mais du fan ah, may wax ma non waxuma simple maanaam boo nee seen da mel da ngeen di clan. ah ñooñu non xaaral xaaral ma la ñooñu liggéeyuñ ci Ramadan xaaral rek. Mhm. boo nee da ngeen ci Ramadan dañoo bëgg waali fans waali comme ni ma bëggee waali man mhm. waali am fu mu leen wala waali moo respecté doomu aadama mais boo ne ñoom ñaar dañoo fal fare ñoom faruñ ci waali maanaam non xaaral euh, liggéeyuñ ci Ramadan mhm. amul benn benn benn benn euh, conseil bu ñuy joxe Ramadan loolu mooy liggéey ci Ramadan maanaam bu ñu bu ñu réunion woo la ne la kaay réunion bu bokk nga bokk ci staff réunion ñu ne ah, dañu war a génne album kan nii ak nii heure nga joxe sa xalaat kon xam nga loolu mooy bokk ci staff Ramadan mm-hmm. mais ay fant lañ bëgg waal te yàlla tax waal mu mm-hmm. doon li leen doon comme Paulus li mu wax waal yi moo tey ci àdduna man tam tey bu ngeen may dékk micro grâce à waal yi Seck mais gëw ma kenn kenn ku dul waal yi défendre ma kenn ku dul waal ci adduna maa la wax lii mhm. comprendre te su ma leen bëgg Ramadane ba Ramadane daj Omaro Baye Zala ak ñëpp laa wax mhm. ba ci mission yi sax ma leen di bëgg kenn tax ma leen di bëgg kenn tax ma leen topp muy waale si ban eh, ban ban réponse ngay joxe si Adamo mi ngi nii maanaam fu mu toll nii Adamo wax na ko Pawlish wax na ko nee waa Seck dañ koo liggéey maanaam mystiquement dañ koo jàpp fu mu toll nii ba xamatul leen li muy def ba ma loolu xam nga la ma tax gëw ma loolu mhm. waaye nit rek la comme nii ñoom li wax dëgg non dëgg xam nga ma tax ma du dëgg man gëw ma ko ñoom mën nañ ko gëm nag quoi xam la moo tax waal nit la comme nit ñëpp day lekk di naan day feebar comme ni ñëpp mais am na lu ko yàlla may loo xam ne mayu ma ko mayu la ko yow mi ran am na ñu du ñëpp du ñëpp non du ñëpp la liggéey di jàpp peut-être liggéey moom ñëpp lay jàpp daal non non bul wax loolu Idaali seexul xaddim yàlla bind na ñoo xam ne boo doon liggéey suba ngoon doo moo la liggéey jàpp du waali sek du kenn kenn. du yow waxuma waali rek dama ne da nga ni. non am na ne liggéey liggéey du leen jàpp mais ni nga waxee nag si bëgg ko xaw xam ne am ñoo xam ne liggéey la ko waxee waali seexul xaddim xam na lu jógewul ci yàlla maako wax ci télévision lu jógewul ci suñu boroom barke alxuraani karim laa la ñaanal. day daal bu waat lool déglu ma lu jógewul suñu borom. mënul ci moom dara xam naa fu ma ko teg waaye kennal yàlla du julli rek de kennal yàlla du julli rek. du julleeg woor rek mooy kennal yàlla julleeg wàll rek woor rek mooy kennal yàlla mais waali man maa ko wax ci télévision laa wax lu jógewul ci yàlla mënul ci moom dërëm. chaque jour ñuy wax ci moom yàlla rek moo ko mën a freiné yàlla rek moo mën a teg ci moom nattu yàlla si rek mhm. te lu bu ñëwee dañ naan du ma ne kenn la ci àdduna di wa yooyu biddaa la gëw ma ko gëm naa liggéey ah waxuma gëw ma liggéey de mhm. gëm naa liggéey gëm naa sëriñ man damay sangu damay takk parce que damay aar ma bopp mhm. comprendre nga mais la waali laa li ma li ma ko xamee ak xolam ak li muy jëf li jëf ci kaw suuf li muy jëf ci doomu aadama yi te yàlla am na lu wax ci doomu aadama yàlla lu mu bind doomu aadama la ci gën a fonk te waali doomu aadama la fonk ci kaw suuf nii amul nga sant na nga nekk ni aadama rek laa la wax mhm. foo mën di jóge ci àdduna barki Seexul Xadim te yàlla am na lu mu wax ci doomu adama dëgg la dëgg la mais mais est maanaam da ngay confirmer maanaam fu mu toll nii euh, lu sama xel di dem maanaam wala lu Sénégal yi bëri di wax ça veut dire que fu mu toll nii Adamo ak Pawlish lañ jóg maanaam pour yàqal Wally Seck parce que bu ñu demee maanaam nit ñi ñu ko wër maanaam dañ koo liggéey yaa ngi doog di ñëw nag yaa ngi doog di ñëw xam dañ ne Omaro ak ñee ñoo yàq. Mhm. parce que ñoom bu ne bu ñu bëgg nañ Wally. Mhm. Wally am naqar. Mhm. ça fait deux ans moo dagul trois ans papaam génn àdduna muy papa coon papa ni mu diise ci doom. ak loo mën di am Wally tey buñ ko waxoon joxeen ay milliards tey papa coon ñëwaat da koy joxe. barke Seexul Xadim parce que doom moo yaay papa mooy lépp ñu joge fi defaguñ dara soxna Moumy di magam di yaayam di léppam génn àdduna moo dagul sax deux mois yu mat. ñu war ko may jàmm tuuti dal mais ñu andi coow li ci kawam moom na kaay nag maa xam ne ñooy wax nii rek di merde. Mhm. mais waali billahi wallahi moo tax may la day kon comprendre billahi wallahi du mos a ŋaang te lu wax bàyyi na ak yàlla. mais est war nañu xaaral rek ma la xaaral xaaral comprendre mhm. ñoom bu dee bëgg nañ waali ñoom. Mhm. war nañ mën a gës bu xamee dara sax te xamuñu dañuy jaxase lii nii dañuy jaxase askan wi mais xamuñu wax xamuñu dara mi suñu dara dañuy wax rek tarari di jaxase askan wi kenn ku nekk génn di wax man loolu moo tax may di génn def sorte mais billaahi wallaahi bëgguñu waali bëgg waali mhm. doo def loolu parce que waali nit la ko day yëg metti waali nit la day yëg lii nit doomu aadama di yëg kon loo koy yen rek na nen yen boo xam ne na ko àttan naam attanu ko metti na mais da koy bàyyi yàlla mu yenul ko ko mhm. kooku mooy waali sekk mais ñoom nii dox noonu ay kii bëgguñu waali ku bëgg waali mu nekk ci naqar mhm. magam gaañu. mais Idaly nga wax ma ak xamee si waale nga. ñoom ñoom ñi nga tudd noonu ak keneen ak keneen. nga ne ñoom waxuma ñoom rek ñoom ñëpp. ku génn di dal ci kaw waali naan waal dañ koo liggéey wala waal dañ koo def nangam dañ koy jaxase waal yi dañoo Ramadane dafa jaxasoo dafa def nangam Ramadane fa mu nekkoon la nekk. ku ñëw ñu soxla la ci liggéey bi pour waa liggéey waali avancé te waali instant yi liggéeyam dafa war a avancé parce international boo ñëwee seen naarax ma ne yor pour deux cent pour cent yoo xam dañ ko soxla pour ramadan mu arrangé waali dañ koy jël yow dañ lay xëcc nga ñëw muy Ndeye Ndiaye Bane yaay keneen na keneen déggoo li mu la musique noonu la d'accord musique du yem benn place mais ñi nga xam bëgg ñu bëgg waaleeg ay dañoo liggéey waali nekk ci te nañu bàyyi li ñuy def di yàq der te yàlla am na sos la loolu laa ay sos la parce que amuñu benn preuve ne lii moo am nañ teg preuve comprendre nga te ëllëg nag yamal eh, xayam dafa am ëllëg xanaa xamoo man den naa la wax loo xam ne ci kaw suuf nii nekk télé bi ratati wax la ko suba dama lay jiitu fële yàlla ne ne ma taxawal ne da nga tooñoon seen ci àdduna xaar ko ba mu ñëw parce que fekk jégaluwuma la fii damay taxaw foofu xaar ba nga ñëw ngir sama jëf jox jox la ko su matul jëf ma war a jëf damay dem ah, ah, safara yal na ma yàlla jégal yàlla rek ma xaw ma kuy dem safara ku dem safara mais nañu sóoraale loolu ci kaw suuf sosal ni ci kaw suuf liggéey nga nit yaa ko liggéey yaa ko def nii man gëw ma loolu gëm naa liggéey mais gëw ma ne nit moo def nangam. Mhm. gars yi nañuy ba yàq dara. Mhm. te ku bëgg waali doo taxawee nii mbubboo nga waali mbubboo waali ak bëgg waali dafa am. Mhm. voilà dañuy resté ba léegi si cadre maanaam liggéey ak musique bi nga xamee nii ba léegi moo nekk ci coow ak ñii di maanaam Faramareen wala ay Ramdan ak nu ñu ko mën a waxee nu ko tuddee yéen seen seen biir. Euh, ñu gis tamit démb maanaam kii di Adamo moom tamit daal di génnaat ne kii di Mara bu Sidi Diop maanaam dañ ko sànni kott te ñu ko sànni kott maanaam du liggéey may kii di Zal euh, Baye Zal jël na ko sax itali ba yóbbu ko France pour faj ji ko waaye Baye Zal tamit gis nañu audio yi nga xam ne nii moo fi xewoon moom ak kii di Mandiaye Seck moom moo génne woon audio yooyu ko maanaam Adamo pour mu yàq kii di Mandiaye Seck nan nga gisee maanaam histoire boobu nga xam ne nii kii di Adamo teg na ko si kaw Baye Zal. bon may wax fu may njëkk a ñëw mooy euh, Mara ndeysaan xam naa du ma sori sax Mara nit ku baax la. Mhm. maanaam nit ku mën a bëggal doomu aadama la même bu mu nekkee fii mm, tout le temps dañ doon ànd dañ doon gisee vraiment. Mhm. du sama xarit mais nit ku baax la. vraiment nit koo xam ne fu mu la gis dala reetaan loo vraiment maa ngi ñaan yàlla natt boobu ko dal muy feewar boobu ko dal maa ngi ñaan ci barke Seydina Mohamed ci barke leeru alxuraan. ci barke yàlla suñu borom ak yërmandeem yal na ko yàlla teggil. ak lu mu mën di doon nag yal na ko yàlla teggi loolu laa njëkk a ñaan pare Mara mu delluwaat ci ay yitteem mhm. euh, li mu dem Europe yalla suñu borom defal ko xéwal mu am teraanga ba koy teral ay waajuram mhm. mais maa ngi ñaan daal ci barke leeru alxuraan lépp loo xam ne mbootu alxuraan la di dindi feebar ci biir mbar alxuraan mhm. maa ngi koy ñaan mu dindil ko maara ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci barke alxuraan karim sama yoon nekkul ci ay dañ ko def nii ak affaire yooyu mais li may ñaan mooy ñu ñaan ko man loolu gëw ma ko gëw ma kooku naan ay dañ ko def nii ko def nii li may ñaan daal yal na Mara wër ci barke alxuraan karim d'accord point. d'accord côté ah, ah, am nga si droit côté Baye Zall ñu si côté Baye mhm. moom moo yónnee maanaam audio yi wala ay vidéo yi nga xam ne moo ko yónnee woon kii di. déglu naa vidéo yi déglu moom si boppam moo ko confirmé. waaw moom moo ko confirmé. Mhm. moom moo xam peut-être am na ci preuve. man aw ma ci preuve te gisuma ci preuve te gëwuma ko xamal laay mhm. preuve ma téye lii la. Télé Sénégal xam nga preuve la. buñ ko fi tafaloo du ma ne preuve la. waxu neen du tax ma gëm parce que mën na am ak problème ne génn seen nee nangam naa teg seen preuve bi moo tax ma gëm man gëw ma loolu gëw ma ko du ma ci sori mais gëw ma ko parce que gisuma ko mm. waxu kese duma ci sukkandiku koo xam ne toujours koo xam ne chaque jour nga wax te en fait say wax mooy loolu bu nit fenn ci yoon parce que diw nee na nangam kese diw moomu génneel preuve yi mu wax muy ay audio wala muy leneen mais diw nee na nangam kese loolu jaxase askan bi la jaxase ay nit la comprendre nga man su ma naan seen moo ma def moo def nangam seen nee na euh, basiru nangam. dama koy teg ci taabul bi. mu ne bay wax dama koy teg ci table bi te nit nag mënoo ko xarab mënoo ko gërëm tey suba nga xarab ko kooku doo nekk gor. da ko da ko doon gërëm non waxuma kooku dama ne exemple la waxuma gërëmu ko de waxuma gërëmu ko de. Mhm. waxuma gërëm dama ne nit mënoo ko gërëm tey suba nga xarab ko lan moo tax bu njëkk waxu ko woon nag ba léegi mu wax ko ana preuve yi na andi preuve. mu andee preuve ñu xam ne moom la. Mhm. mais fii ak andigul preuve mënuñu gëm ne moom la mm-hmm. voilà. Mm-hmm. moom moom gëm naa du indi preuve parce que nee na kii di. kon amul sens non attends ko nekk jëlee lépp nga teg suuf parce que loolu day yàq loolu yëpp ay manigance la ay di woon na ma man daal góoma loolu pour dire moom man su ma demoon ba nee na nee naa seen nee na nangam. billahi wallahi wa taala man dama direct seen. Mm-hmm. seen ma demoon ba diw nee na nangam. dama naan preuve baa ngi nii même suma ma di bàyyi sax dama koy bàyyi. su ma àdduna di bàyyi sax dama koy def parce que xam la moo tax loolu moo tax nit ñi jox la cër parce que loo wax da ngay andi preuve seen seen barki démb am na ku ma tooñoon tey waal tey wax dama ko ne dama koy dama tooñ deux fa ma baal ko jéggal ko te yàlla tax mu tooñaat ma ma woo ñi ma war a woo ñetti nit dama ko yóbbu ci tee ma ko yóbbu police ñaar ñaan ma may leen ñu ne ma ah may leen sama yaay may wax lu garaaw seen man dama direct. <laughs> dama gëm sama bopp non dama gëm sama bopp moo tax ma koy xam la moo tax. Mm-hmm. dama gëm sama bopp moo tax koy wax du xaar ba na ne ma lii man lu may wax ci man dëgg la du ma ma toog ba tax may sos. Mm-hmm. wala toog télé di wax ci waali loo xam ne gisuma ko wala wax la loo xam ne dunduma ko ak moom jamais barki Seexul Xadim. Mm-hmm. ñett dañ ma woone ma bul dem jéggal ñu ma ne ko bii mooy deux fois jéggal naa ko dama koy won lan mooy yoon kenn ki wow ma ne ko sëñ Touba mu anamu sëñ Touba. anamu génn àdduna ana maam alaaji ñoom ñëpp buñ génnoon tey ñëwaat biir asa biir ci kaw suuf du tee ma yóbbu ko sama yaay bi nekk biir suuf yàlla ma yàlla jéggal bu ñëwaatoon du tee ma yóbbu ko xanaa wax tey ci frankulaay bi loolu mooy preuve loolu mooy preuve man su ma demee bay wax nit ci leen rek damay andi ay preuve mais day jaxase manigancé li nga xam ne moo di askan bi mënul jaxase faramaare na ñun ñi gëm dara kenn mënu ñoo jaxase ñun ñi gëm waali gëm nañ waale pare kenn mën te duñ suñ àdduna ba su ba ma nekkee adela bi léegi mosuma wax ci wàllu lu bon muy ginnaaw muy kon da nga jàpp ne fu mu toll nii Adamo dafa nekk contre yéen man waxuma Adamo sax non parce que même budul Adamo échange moom la ñuy wax parce que fu mu toll nii même budul Adamo moom moo génne information yi boobu gis nga fu mu toll nii ñëpp a ngi fu mu toll ñëpp a ngi commencé di xas Baye Zal ñëpp ko xas yaa ngi koy tooñ Baye Zal ku moytuwul ku moytuwul ci cas bii xanaa Baye Zal rafet xol de mais ku moytuwul ci cas bii fekk preuve génnul am Baye Zal dina la yóbbu kaso dama lay wax lu garaaw parce que ñi ñu gën tara te amuñu preuve ku ci moytuwul bàyyi zaal bu bu mënee muñ jalaa mën la bàyyi mais bu mënul muñ gis naa benn waaye mu wax ci démb li mm-hmm. mu ci waxee mooy ménageur kii li mu ci waxee xaw ma kan la en tout cas <laughs> mais li mu ci waxee moom ñoom neen dañ dañ porte plainte nañ dem porte ma buñ ni moom loolu mooy yoon bu ñu la tooñee demal port plainte mooy yoon man bañ ma tooñee audio ma def ma len dama muñ mënumaa muñ ma dem porte plainte mm-hmm. loolu mooy droit comprendre am nañ droit dem porte plainte ñoo xam ne dañu am dëgg wala duñu am dëgg am nañ ci droit mais en tout cas daal cas bi fii ak preuve génnul preuve lappi génn mu ngi nii kenn du ko weddi ak projecteur ak jigéen buy filmé loolu mooy preuve preuve lappi laa gëm man idali pour l'instant yi mm-hmm. en cas Adama moo génnee preuve nga dégg si kàddu yooyu est-ce que day nekk loo xam ne nii dalay bett wala non déggoo li ma la wax euh, nee la fii amul luy bette fii mm-hmm. Sénégal amul luy bette comprendre nga euh, bu génnee euh, preuve yi xam ne am na. va léegi dafa dafa comme moom sa des fois da koy wax si biir waxam nee na ñu bëri lañ yaakaar ne fu mu toll nii maanaam day yàqal Wally Seck da koy xas. da koy kii Adamo dégg nga ko mu ne ñu bëri lañ yaakaar ne fu mu toll nii damay xas Wally Seck wala dama koy yàqal alors que dama koy defal mais ñu koy yàqal dëgg-dëgg mooy ñu ko jegee fu mu toll nii. Wally ma wax leen man dama xam li may wax <laughs> du ma xam ko Wally kenn mënu ko yàqal ku dul yàlla ñoom ñoo yàqal seen bopp. parce que am na ñoo xam ne mënatuñoo dugg ci waar yi. mënatuñoo dugg moo tax ñu génn di wax. maanaam moom waaye mënatuñ saf Wally Seck. non mënatuñ dugg mooy. waaw mënatuñ dugg mais pour ñu gis Wally problème la. Mhm. Wally dem na Paris ñaari yoon. am nañu ko gisul gisul Adamo. non xaw ma de. ay ba man man wuy ma man daal dama lay wax rek. dem na Paris ñaari yoon gisul Adamo. am na waaye dem na Paris ñaari yoon. Adamo am na ku doon gis Wally chaque jour loolu rek am na koo xam ne chaque jour bu dee Wally demee Paris vidéo sama waa ji sama nangam Wally jóge na bi muumi daan euh, gaañoo yal na ko yàlla yërëm. Mhm. waali coow li bëri na waali dem na Paris. gisu ko gisu ko Adama gisu xaw ma am na benn waay bu ko gisul daal xaw ma kan la <laughs> gisu ko. bi waali demaatee encore dem na pari bi ah. kii bi invitation Sidiki Diabaté bi. Mhm. dañoo tëj kan yi. loolu moo tax te gisu ko dañoo tëj kan yi nanguwul dem ci hôtel bi hôtel bi loolu moo tax mu mere ñu mere staffu waali. Mhm. di leen yekk lu mel ni xamee ñun du ñuy tof ñun. du ñuy ngaaka staff Waly ñoom Baye Sall ña fa nekkoon ñoo tëj camp yi ci li nga xam ne hôtel bi pour nga gis parce que Waly n'importe qui ànd ak ñoo xam ne dañoo wayee di je comprends nga voilà moo tax bëri gis ñu leen waxuma la Adamo waxuma la Adamo ñu waroon gis Waly bari na te gisuñu ko mais moo doon sirab chaque jour moo doon sirab chaque jour daan sama Waly Waly bi gisuñu ko biñ demaatee Waly dafa xool xaarement xam ne mooy nitu Waly ñag ñoo ñoo tëj camp yi ñoo am na wayee di yoo xam ne Waly dafa nekk ci album international liggéey am na ñu wayee di ñoo xam ne Hmm, pour ñu nekk foofu di ci na bak di waal ñu tëj camp ñu deux jours euh, deux fois mënuñoo gis ba dañoo nekk ci beneen cas bi sax lañu jëm après ah, nekk fa di naan xam ñoo wax man damay wax mënatuñoo dugg gis nañ gis nañ aadama di bari na man man damay wax man am ñoo xam wax bàyyi mu wax dama la gis nañ laa la wax gis nañ Adamo di Snap ak kii di Bouchike Diop ah, ak ñoom Makhtar Diop suba teel nekk si côté boobu bene camp boobu ngay wax waa suba teel ñoo fa nekkoon gis nañ ñu nekk ak ñoom. Sidiki Diabat nekk fa. waaw Sidiki Diabat fa nekk Sénégal Sidiki Diabat fa nekk Sénégal non mais am na yeneen invité bu nekk. non Ida Ida Ida day assumé nag. bu ma da ngaa tuddoo tur. waaw même bu ma tuddoo d'accord naa mais man wàll laa xam ma keneen sax mooy tur beneen tur. mais beneen camp mooy kan beneen camp. mais Sidiki Diaba nekk fa beneen camp. mais Sidiki Diaba day Sénégal. non la. mais ñaari camp fi am muy Sidi Diop ak Wally Seck. non man xaw ma ñooñu man wàll laa xam ak Sidiki Diaba pour muy leer wàll laa xam ak Sidiki Diaba Sidiki Diaba da nga bëgg ne instant Adamo dafa Adamo maanaam. mu <laughs> tudd bu Wally Seck mu daal di dem. seen Adamo sama camp camp camp suba yéen def def en face avec yéen fu mu toll nii loolu ku ñuy faasanteel. ñooy le roi du Adama bu demee suba teel di ngeen si yéen de. seen waxal leneen mu am fu la moo gën. ay am na am na bëri mu leen yoreel. sa waay waal daal du nekk daawoon ragal waal daal wuyu daawoon ragal nag rek. non Idaal daawoon ragal nag daal xoolal ma la wax rek moo fi moo fi moo moo fi jëf ñuy wax ci moom Sharafal nee na jëf jël. yeneen ñi ñu parce que mënuñoo jëf ay wax lañ toll bàyyi leen ñu wax waal di jëf suñu leader di jëf. pour dernière question ñu daal di tëj. boo toog saa gis aadama mu dem suba teel nan nga xëy dundee di am perte ma si yéen la wala la. non kooku du ma wax ci moom ñun amul lu ñu perte yàlla rek moo ñu mën a pert loo te yàlla ànd naa ñun ba pare. jërëjëf merci beaucoup. kontaan naa kontaan naa taay ma comme da nga commencé di ragal na loolu moo tax. Idaali waroo ragal Idaali. du ma sa ragal. mosuma ragal. non tey moom doo ragal tey lu nga yàq maanaam Pawlish ak Adamo yëpp. non man kay déggoo li mosuma ragal laa la wax. Mm. bu ma jaxaseeg ay ñooñu noonu. <laughs> maanaam sama xarit la <laughs> voilà. kontaan na si yow ñu bàyyi nga di tàggatoo. waa di sant yàlla di jull ci nent bi di la sant seen sama xarit bi yow saa yoo ma soxla yaakaar naa dag am saa ne. muy sa plateau wala nga fekk sama kër di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm-hmm. di sant sama ñaari waajur di ah mais kër Faramaay moo ne moom. mais moom noonu est-ce que mooy ñëw léegi chaque jour sax. ah bu la neexee de te dañ ñoo bett sax mooy loolu. Ah, kër Faramaay moom waaw barke sëñ Tuubaa dañ ñoo bett kër Faramaay moom mel noonu. <laughs> jërë ngeen jëf kontaan naa <laughs> di gërëm ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup. ajëf merci beaucoup Idaly amoon nañ contentement bu baax a baax boo ko ak yow maanaam lii de plateau bi ñu wax ñu waxtaanee fi li nga xam ne nii lu bëri la waaye tamit nga def ay révélation yu doy waar xam naa ba mootu moom euh, coow dina amaat alors mbokk internet merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille conseille de vous abonner sur Télé Sénégal et Magie. Beaucoup de bananes. Ciao